waa asalaamaaleykum mbooloo mi waxoon naa leen ko ma dellu siwaat di ko waxaat lu yëngu lu nekk rek la ko yëngal moo ko ëpp doole bu ngeen déggee xii nii ngeen dégg sama mbayeen bii taxaw tiim lii comme ni ko Cheikh Béthio mu baax ma daan waxee naan soosi na ñëpp mat mu tiim cadre soosi nga xam ni am na lu am am na lu xew ana lan moo xew dëkk bi yëngu na adduna bi yëngu na waaye nag la ko yëngal mooy li ñëpp di waaj mooy bisub Serigne Touba Khadim Rasoul bi nga xam ni bi mu fi jógee di dem ci tukki bi li ko waraloon mooy julli di am ndam yoonu murid am ndam tey nag safar gi ñu leen njëkk a ñëw muy safar gi nga xam ni moom la waa site Djily Mbaye fii ci BCEAO di organiser ñu ñëw fekk fi nag ki nga xam ne mooy jëwriñ bi kon ñu bàyyi ko mu nuyoo ak yen jëwriñ ñu ngi lay nuyu. waaw leen sant bu baax a baax. mën ngaa wax nit ñi sa tur. waaw maa ngi tudd Daouda waaw lan moo war a tey nag seen daje bi fii ci BCEAO. waaw daje bi dañ ci santaat Serigne Touba di santaat Serigne Sall Gueule Tapée ndax lii lépp Serigne Touba la ndaxte chaque année lañ ko daan def bii mooy quatrième yoo xamante ni ñu ngi koy def te bu ñu koy doog a tàmbali café lañ tàmbali beneen bi ñu teg benn mën a ceeb beneen bi ñu tegaat beneen mën a ceeb bii nii teg nañ ñaari mën a ceeb togg suñuy gën a togg suñuy yàpp xar bu neex séddale ko lépp. togg suñu soos bii te lépp taxul nag Serigne Touba rek a tax waaw Serigne Touba rek a tax boole kaak ànd ak ceeg ñëpp mbokk taaliba yëpp barke Serigne Sall mbokk taaliba yëpp lañ si àndal di santaat daal Serigne Touba. moo mel ne nag Serigne Saliou Mbacke Gol Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée moom nga wax noonu di xalifa Thiantacones yi di kenn ci Serigne Saliou euh, Cheikh Serigne Saliou Cheikh Béthio Thioune barki dem rek ngeen jóge Massalikul Jinaan tey ngeen entamé li nga xam ne mooy safar gi waaw maanaam gannaaw gi bi ngeen jógee ak li nga xam ne lu gis nañ li nga xam ne moom ngeen def ci euh, ci Masaalikul Jinaan bi maanaam lii ngeen nekk ni tey waajal xanaa da ngeen di waajal màggal gi lii nag maanaam xam muy sawar boo xam da ngeen ko tàmbaloon di ko def léegi ana nan ngeen di waajale nag màggal gi. waaw màggal gi lépp noppi na ndaxte képp ku Serigne Saliou ñaanal ndax yoonu Serigne Touba moom lu si waay def Serigne Touba rek lay fay ndaxte ñun de boo xoolee ñun ay ndaw lan ay xale yu ndaw rek a jigéen barke Serigne Saliou Mbacke ban koy tàmbali mooy li ma la wax sànq rek ay café lañ doon tàmbali tey ñu ngi ni santat nañ Serigne Touba togg nañ ay mën ay ceeb ay mën ay xéewal lépp barke Serigne Saliou màggal gi nag Serigne Touba matal na lépp màggal mag Serigne Bamba matal na lépp ndax ku xool barki dem li Serigne Saliou Goltapé def Masalik ànd keeg an ma ànd seeg benn mag bi naan Serigne Sall Thioune Daaru Salaam kon dañuy santat Serigne Touba rek waaw santat nañ daal Serigne Bamba moo mel ne li nga xam ne Cheikh Béthio cuun maam bandi moom la daan def ci màggal gi mel na ni lépp daal Serigne Saliou Gueye Tapé matale na ko ndax ku gis nag yi daal mel na ne matale na ko est que moom la nga xam ne Cheikh Béthio daan na ko def ndax loolu moom daanaka noppi na ci ngir def loolu. est-ce que est-ce que dubluwul est-ce sax ndax Serigne moom lu Serigne bi doon def. bu su dolliwu du ko wàññi ndax Serigne Touba ka teg loxo ku Serigne Touba teg loxo moom lépp loo laal mu nooy ndax xam naa ne moom lu muy liggéeyee Serigne Touba barki dem rek maa ngi seetaan si YouTube bi nag yim daax tey bu neexoon ne sama papa jóge na fi taalibe yi patati patata waaye moom defuloo dafa ñëw ànd ak taalibe yi lépp lu bàyyam daan def mu gën a yokkaat loolu ndax boo xoolee nag yi ñu ngi koy dàq di ñëw ñu ngi xel comme jaaga kon dañuy ñaanal sëñ Saal Gueule Tapée lépp lu mu bëgg si màggal sëñ Bamba yàlla na ko Serigne defal loxo teg ci loxo ndax xam naa ne sëñ Bamba teg na si loxo ndax ku sëñ Muntaxa jàkkaarloog yow wax si yow wax ju rafet signal la bañam yi weex ya bañam yi rafet ya kon bu ñu yóbboo sant Serigne Touba baax a baax li nit ñi war a xam nag réew mi li gars yi di yàgg a wax sëñ Touba moo ko moom waaw nan nit ñi nangu ne sëñ Bamba moo moom fii ndax ku xool Masaalik la sëñ Abdou la sëñ Modou Kara wax naan réew mi Bamba ko moom Masaalik bi ñëw mu firndeel ko kon dañuy santaat Serigne Touba baax a baax santaat nañ sëñ Bamba lépp lu wax rek àll waaye santaat nañ Sëriñ Tuubaa léegi lan ngay wax sa mbokki taalibe yi nga xam ni ñoome ñi ngi defar ñi ngi def safar di ko waajal lan nga am loo leen di wax loo xam ni moom la ñu waaj a mën a préparer ngir jëm ci màggal gi waaw dama leen gën a ñaaxaat di leen gën a soññat ndax Sëriñ Tuubaa boo dencee juróomi ni ne bu ma ko defee Sëriñ Tuubaa bu subaa du ma am lu ma reer yaa ngi juum na gaa yi ne ñëpp seen xéewali njëkk def fi màggal ndakaaru njaay gii nan fi def màggal bu pare doo dem Tuubaa ndax Serigne Touba defal nañu lépp ibbi na banque yëpp murid yëpp ay am xaalis am xéewal dem magal dem def lépp ci kàttanu yàlla suñu borom. murid yëpp ay am xaalis te ñëpp ay màggali nañ ko waaj te ko foofu nag xam ni safar gi ñu ñëw mooy safaru waa BCEAO ku masaana wax sam xel nekk ci tey ci plage bi ay xale dajaloo fi muy waa kër Cheikh Béthio ñuy toggi ñam di defari café ànd ak Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée di xalif général des Thiantacones di xalifa Serigne Cheikh Béthio Thioune kon daal na ñëpp waaj seen euh, euh, site bu mag baa ngi noonu Allo Dakar TV international loo wax ci site bu mag bi nag Allo Dakar TV international. waaw kontaan na parce que li def ñoo bett parce que ñun du nëbb am na benn site bi fi romb sànq waaye dinañu rombe dem di uti ji la loo xam ne lu ñaax feet la kon yéen boo leen ñëwee si bërëbu sëñ Bamba gi rek. yéen Serigne Touba dina leen gën a yokk te ñu ngi ñaan xéewal gi ñu bokk ñun ñii yal na leen ko Serigne Touba sédd ñun ñëpp te xam naa ne moom fekk at fekk quelques jours barke Seexul Xadim di ngeen yokk te di ngeen xéewale ndax ñun ñi gis nañ te boo xamante ni sëñ Bamba defal nañu ko te ay ndaw lan di si ànd ak jëwriñ ilimaan mu ne taalibe sëñ Aliou Diouf la kon dañuy santaat Serigne Touba bu baax a baax sant nan daal sant nan nag yàlla ngeen fi yàgg te wér lépp loo leen def yàlla na yàlla ngeen raw seen maas si barke Seexul Xaddim. amiin jërëjëf seen site baa nga noonu jërë ngeen jëf.